بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين bokk yi ñu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom borom bi subhaanahu wa taala rek mooy ki ko jagoo nu ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim ci tawfiqi sunu boroom ñu ngi nekkoon ci saar wi di suratul fatxi suratul fatxi yaani sulxul xudaybiya borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu yegsi woon ci laayey ñaar fukkeel ak juróom-ñett tey ñu jël aaya ji ci mujj muy aayey ñaar fukkeel ak juróom-ñeent di jenn laaya laaya jooju mooy fi borom bi subhaanahu wa taala di taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam di wane seeni ngëneel ak dayo bu rëy bi ñu am ci suñu borom lii day mbokk yi kenn koo xam ni ngëm yàlla gu wér te set mi ngi ci sa xol booy jàng alquran ay góor yoo xam ni ay nit lañ woon comme yow dañ doon lekk di naan di sangu di réerle di feebar di ñàkk di mer di am lu leen metti lu la gaar gaar na leen ay nit lañ woon ngay ay nit duñu malaaka duñu leneen ñu jëf ci ay jëf yoo xam ni lu mën a nekk la ñeneen jëfaat ko ci seen gannaaw wala lu bari ca lañ doon jëf boobu nde bu du woon loolu sens dootul amat ci nettali seen dund ak royloo ginnu leen royloo ñooñu liggéey ci kaw suuf ba am ngërëmal sunu boroom wala zaalu ala qayd alxayaat mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel yàlla yebal malaaka moomu di jibril nga xam ni di quwatin inda dil arshi makin ku am dayo fa sun borom ku wóor ku ñu tànn ki ah di ar ruuxul amin ar ruux mi nga xam ni ku ñu wóolu la nga xam ni yàlla moo ko jox sifa boobu muy bàyyi ko ci asamaan di ñëw ba ci kaw suuf lu dul benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon te dara yëkkatiwu ko lu dul yonent bi mu ne naa mu ni ko jottalil gaa yi ànd ak yow nee leen yàlla kontaan na ci ñoom allahu akbar mbokk yi loolu loolu lu mat di xalaat la ndaxam day jàpp naa ni kenn ku ne ci ñun ak loo yaafus yaafus ak loo sàggan sàggan bëgg nga yàlla gërëm la ndax fii ci àddina moom xam nga ni amoo fi lu gën a rëy borom bi gërëm la waaye ngërëmal suñu borom nag mbokk yi kenn du tëdd nelaw di ko am ab yaafusit du ko am waaye nag ay nit ñi ngi koy am ba tey da di ña yàlla doon garantil am nga nag borom bi waxatut kenn ku ko am léegi nag nit ñi moom dañuy dund rek ci làmbaatu ak dundee yaakaar yàlla na borom bi boole ñu ci ñi muy gërëm sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما
kon laaya jooju di jenn laaya tëj saar wi nga xamante ni mooy suuratul fatxi laaya ji mbokk yi laayalal joo xam ni borom bi daf koo tàmbalee xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam mu tàmbalee ko loolee nga xam ni moom la ñi jàngale làkku arab di wax mubtada ak xabar muhammad mu ne rasulullah muy mubtada ak xabar tàmbalee ci muhammad muy mubtada ji rasulullah di xabar ji yaani yuxbiruna bi anna muhammadan rasulullahi xaqa dëgg dëgg dëgg dëgg muhammad nag ndawal yàlla la moom loolu moom du lu kenn keree du lum jékki-jékki rek di ko woote woo nii du loo xamante nii dafa fekkoon ay maamam nekk ay yonent rek mu ñëw lang lang lang ci rang bi déedéet waaye muhammad moom dëgg dëgg dëgg rasulullah ndawal yàlla la loolu moom jëritul werante sunu borom mu ni muhammadun seen soppe bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaatimul anbiyaai wal mursalin ah sunu borom mu ni rasulullah moom day yonent bi yàlla la yàlla jagleel na ko mboolem xeetu tagg wuy kontaan loo ab soppeem sunu borom mu ni moom day ndaw la lu yàlla yónni woon mbokk yi ndax xalaat ngeen kaw suuf li fi nekk ci ay nit ni ñu baree ak jinne ñi fi baax ni ñu baree yàlla di tànn ka ci gën a baax ak xol bi gën a set tànn ko mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahu aalamu xaytu yajalu risalata ci suratul araf yàlla moo gën a xam ah fan lay tàbbal ak kan lay def mu nekk ab yonentam ndax kat am na ñu ko bëggoon a nekk xam ngeen buxaaba yeeg seetkat yeeg petaawkat yeeg ah xarga fuufakat yeeg ila axirihi ci jamono ju jëkk ja doon nañ gisaane wala ñuy buxaaba xam ni muhammad waxtoom yegg si na loolu nag benn bu xaawa booba islam ñëwagul ba di ko tere ñaareel moom mooy xam-xam la woon boo xamante ni tamit jàngoon nañ ci tawraat ak injil ak téere yi jiitu ni ay mandargaa ngi nii yoo xam ni saa bu yegsee dañuy xam ni muhammad jege si na ak ñëwam te loolu gisoon ngeen ko ci dundu salmaanul farisi bi kulli wuduux sunu borom mu ni muhammad day rasulullahi ndawal yàlla la allahu akbar mbokk yi muhammad moomu ngeen di dégg sallallahu alayhi wa sallam yàlla def koo sàkk def ko jëmm joo xam ni ci wàllu min naaxiyatil xalq ci wàllu bind boo ko xoolee da ngay xam ni kii du nituk ordinaire sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njoolaay ba néewul woon sàtt ca kaw gàttaay ba néewul woon tugut ci suuf xar kanam gu yàlla yoroon sallallahu alayhi wa sallam bët yu ubbeeku boo ko xoolee xef yi dafay rey rey da nga yaakaar dafa tus nga lu même bu ko deful jëbi yaatu lool ñu tay leer nañ li ko tàmbalee ci dënn bi ba ca biir ba aw rëdd la defoon aw rëdd aw rëdd woo xam ne bu summeekoon ba nga gis ko rek nga xam ne lii aw rëdd la moom woo xam ne dafa am ay pepp peppi kawar yu ñuul mbagg yi ubbeeku lool mu nekk nit ku ku fees dell nit dana fees dell te amut yaram loolu day am nit day fees del te du am yaram noonu la yonent bi meloon sallallahu alayhi wa sallam buy dox da nga yaakaar day capp tànk yi ndax melokaan yu mu doon doxee kooku moom wax dëgg yàlla xalqun jibiliya du lu ñu ko mën a roy nag ndax loolu mbindin la noonu la ko suñu borom defee bu ñaqoon fii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu tëdd ci morso ba pare mu ñaq fa nga ñëw foon ñaq wa wallahi da nga yaakaar parfum lañ fa sotti woon saxaaba yi ko gënoon a jege yu jigéen ñi nga xamante ni bokkoon na ñok moom luñ ko mën a jegee léeg-léeg da daan nelaw ñuy xoos ñaq wi nekk ci moom bi mu benn bis mu yëg ko mu laaj ndaw si loo koy def mu ne ko ci sunu parfum yi ñuy neexalee sunu jëkkër lañ koy sotti maanaam ñaq wi sallallahu alayhi wa sallam kawar gi léeg-léeg da ko doon bàyyi mu daanu ba daanu ci mbagg yi léeg-léeg mu xuuf ko ba ci mu yegsi ci nopp yi léeg-léeg mu gudd lool mu xa- xaaj ko ñaari xaaj benn bi mu waddul fee benn bi mu waddul fa ca des sallallahu alayhi wa sallam boo ko gisaan muy wax nga jàkkaarloo gémmiñ gi faahan wajhan da ngay yaakaar ni gis nga jamonoy sedd bu nit dee wax ngay sentir loolu di mel ni saxaar di génn ci gémmiñ gi loolu xam nga ñëpp a koy gis yonent bi bu doon wax muy tàngoor muy sedd day mel ni benn lumière ngay seen muy jaar ci sàkkar yàlla bi di génn sallallahu alayhi wa sallam amma min naxiyati alxuluq ku rafetoon jikko la doonul woon ku ay waxam bari lu dul da doon jàngale diine mësuta fayantoolu ñaaw sallallahu alayhi wa sallam pour nga gis ko mu mer daa fekk dañoo xotti ormay diine defees na ko loo xam ni kun ko def ku nekk da nga futtee ko xeex waaye nag yàlla da koo tagg yow kat nii nga mel yow kat nii nga mel yow kat yow daal fi ne buñ bëggee noppal daal wa innaka la ala xuluqin azim yow daal buñ doon natt jikko yu rafet yaa nga ca njomboxtal ga toog maanaam diw daa rafet jikko diw tungam tungam diw diw tungam ko keneen féete ko kaw keneen féete ko kaw muhammad ñëw tiim leen ñoom ñépp wa innaka la ala xuluqin azim sallallahu alayhi wa sallam ku rafetum ay jikko la loolu même ay noonam sax dañ ko ko doon seedeel yàlla mu ne fa ba ma rahmati min allahi linta lahum gis nga yow gis nga nit ñi niñ la toppee da nga yaakaar ni da nga koo jekki ja déedéet du af sa góorgóorlu la de ginnaaw ndimbalam yàlla walaw kunta faddan galid al qalb gis nga boo naqari woon ay kaddu gàtt ay kaddu di gëddaatee ka arsalaate juróo fi kenn lan faddu min xawlik ñëpp ay dem seen yoon faafu anhum ku defeti erreur baal ko wastaghfir lahum ku def njuumte jéggalul ko yàlla wa shaawirum fil amri loo jàpp woo leen laaj leen seen xalaat moo tax abi hurayra mu ni gisuma ku dàq diisoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek tànn ku mel nii yónni ko gis nga ñi nga xam ni ñooy noonu lislaam wallahi ñoo la gën a xam ni maanaam xam nga léeg-léeg li yàllay wax rek wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa nit dana bañ dara fekk bañ gi bañug làmmiñ la waaye boo xotti woon dënnam la ca nekk bokkut ak li muy wax ci làmmiñ bi lu ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam bañ ko nag dafa yombut woon nag bañ ko dafa yombul de est ce que xam nga ni yéefar yi bu caagi ni jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu bañoon ndax la la koy woon mooy ndénkaane gi ñu ko doon dénkaane ak ku jàq ñëw ci moom ku am looy ndénkaane xam nga ni mas ngaa gis noonu booy dénk say bagaas mas ngaa gis noonu boo xam ne boo jàqee ci moom nga jëm allahu akbar yàlla mu ni muhammad mii day rasulullahi mooy ndawal suñu borom la te it nag mooy mujjantalug yonent mbokk yi jàngalekati lislaam yi ak fun mën a ne ci àddina dañu am matuk ak fituk ak ñemeñuk ak wóoruk joxe xam-xam ca anam gamuy leeree te banam bañ a moytu lenn kenn lu dul la yàlla yoonal akub yonenteem yonent bi laa wax sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi yàlla mëjjee wàcc ci kaw suuf képp koo xam ni dafa woote woo ab yonent ak ku mën a doon bu dee yaa ko wax waxoo lu am bu dee dañ la ko waxal ña la ko waxal waxul lu am te ku ko gëm weddi nga alquran weddi nga sunna te it nag al musibatu kullul musiba mooy ku gëm ni am na yonent ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy aqidatan fi qalbik faqad kafart ab yéeféer nga parce que dafa bokk ci lii tax nit ki ngëmam wér mooy mu gëm yonent ba nopp gëmaale ni mooy yonent bi mujj laa fi Sénégal wala fi Afrique wala fi Europe du Europe du Afrique du Asie du Amérique du fenn laa wax ab yonent fii ci kaw suuf ila an yarisa allahu al arda wa man alayha du dellu siwaat loolu na leer loolu moom njàngaleem yàllaa ko yonenteem di lu ma sàmba wax du ma dem ba wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne walladina maahu bokk na ci melokaani gaa yi ànd ak moom day ashiddaau ala alkuffar dañoo tar lool soxor ci yéefar ndax bañ gi yàlla bañub yéefar moo tax ñoom it ñu bañee ko noonu waaye nag ruhamaau baynahum ñoom boo leen di fekk dañuy yërëmante ci seen biir mbokk yi laaye jii day bu fekkee dañoo wax ni alquran mooy sunu téere te moo ci la ñuy defaroo jàpp na ni jaaduwut nu romb ko lu dut kenn ku nekk ci ñun jël na ci boppam mu natt ko mu niit ko ci aaya ji sunu borom dañi walladina maahu gaa yi nga xam dañoo ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ashiddaau ala alkuffar seeni melokaan ci yéefar ñoom duñ mës a bëggub yéefar duñu allié mukk ab yéefar ya ayuha alladina a sunu borom mu ni ya ayuha alladina amanu qatilu alladina yalunakum min alkuffar wal yajidu fiikum gilza gaa yi nga xamante ni gëmuñu yàlla yàlla mu ni xeex leen ak ñoom te benn sentiment bu mu feeñ ci yéen wan leen leen xol bu tàng ba ñu yëg ko bul ficcee ko ci seen kanam bu leen wan ni bëgg naa la bul aliyéeg ñoom muy ashiddaau ala alkuffar bépp jullit boo xam ni mi ngi allié ak ay yéefar ak bépp relation bu la booleeg ñoom wala nga di leen bëgg ak lenn ci intérêt yi àddina yu tax boo wéetee yow ak yàlla kese tuumaalal sa bopp bi adami sidqil iman ni yow mii dëgguwoo sa iman ndax ku gëm yàlla gëm ab yonenteem mënul allié mukk ab yéefar soo demee ci suuratul maida yàlla ma ngi ko fay wax ak yeneeni saar ci alquran yàlla mi ngi wax ni jaaduwut aji gëm yàlla di bëgg ab yéefar mbaa muy allié ak moom ak benn intérêt bu leen boole ya ayuha alladina amanu laa tattaxidu aduwa aduka awliya tulquuna ilayhim bil mawadda samab noon di seen noon di noonu muhammad di noonu lislaam bu leen ko jël def def ko ay partenaire wala ay allié ah tulquuna ilayhim bil mawadda ma wax na nga di ko bëgg wa qad kafaru bima jaakum min alxaq te ñoom dañoo weddi li nga gëm yow yuxrijuna rasula wa iyakum di génne nañ yonent bi ca dëkk ba yéen it kuñ jekku danañ ko toroxal an tuminu billahi rabbikum defu leen benn bàkkaar lu dul da ngeen a gëm yàlla kese lañ leen bañee gis nga de borom bi subhanahu wa taala mun du jaadu aji gëm yàlla laa tajidu qawman doo fekk mukk ci àddina déglul de doo fekk mukk ci àddina nit koo xam ne yuminuuna billahi wal yawmil axir gëm na yàlla nee na te muy dëgg gëm na yonente bi te muy dëgg yuwaadduuna ñuy bëgganteeg aliyeeg neexoo xaritoo man xaadda allaha wa rasulah ku noonoo yàlla noonoo bi yonenteem nekk bu yéefar nga gëm yàlla gëm ab yonenteem di xaritoog moom suñu borom mu ni mukk loolu doo ko gis aha mbokk yi loolu kon ñun mën nañu wax ca la ñuy xamee ni kon ndeke saa boo gisee kuy allié wu ku yéefar wala mu koy bëgg wala muy séq ak moom ay mbir yoo xam ne cofeel ma nga ca yëgal ni ngëm yàlla wérut mukk laa tajudu la yàlla wax laa li naf yi laa tajudu doo gis mukk doo ko gis ça veut dire que doo ko gis kon boo ko gisee rek moo lay wane ni kon kii du ko gëm yàlla yàlla moom li mu ne doo ko gis moom doo ko gis bàyyil ci xel baax a baax laa tajudu la wax doo ko gis mukk kon soo demee ba gis ko jàppal ni li nga gis yow yaa ko ko foog waaye du ko waaye yàlla moom nee na doo ko gis yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasula du ñu bëgg ku bañ yàlla akub yonenteem nga ne ha mu ne maa la ko wax ah waaw bu fekkee bu mu joog bu mu bu mu jege jege na leen boole na leen nag mu ne walaw kaanu abaakum même bu nekkoon baayam la nga ne ha mu ne aw abnaakum wala seet doom ji nga jur aw ixwaanakum wala say frère aw asiratakum wala sa géño ki nga bokkal waa ñii ñoom néeg nañ de sunu borom ni waaw li ko waral mooy ulaika kataba fi qulubihim al iman yàlla rokkas ci seen xol yi ngëm wa ayyadagum bi ruuxin min yàlla dëgëral leen ak kàttan ba tax ñu man loolu moo tax it wa yudxilukum bu ñuy faatu mu di leen tàbbal jannatin ay ajana yoo xam ne tajri min taxti al anhaar looloo waral radiallahu anhum yàlla mu ne lii moo tax ma kontaan ci ñoom parce que liñ def ku ko def ñu war a kontaan ci yow aboubacarin siddiq aboubacarin siddiq daa dajeeg doomam fekk doomam nekkagul woon jullit booba ci biir xare badar doom ji di ko daw di ko moytu bi xare bi passé mu ni ko bàyyi biñ dajee badar yow jekku naa la jekk goo xam ni bu ma la bu ma la jege dama dama laa bañ a rey rek aboubacar ni ko billahi bu doon maa la gis ma rey la abu ubaydata amir ibnul jarraax dajeeg baayam ni ko baay bu ma dajewaat ak yow ci biir xare bu ñu dajewaatee dana la rey de waaye bi mu dajewaat ak moom rek bopp bi la tell mu daanu ci suuf aaya ji loolu moo ko taxawàcc walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwanahum aw ashiratahum li waral ñu man lii ulaika kataba fi qulubihim al iman gis nga de yàlla mu ne bu leen jël ci suratul maida yéefar yi def leen ay alliés ko wala ngay méngoog ñoom wala wa man yatawallahum fa innahum min fa innahum minhum ku leen def allié rek yëgal ni ca ñoom nga bokk ndax ab saay-saay moom yàlla du ko gindi mukk foofu nag nattal sa bopp ma natt sama bopp ñi gëmul yàlla di ay yéefér lan lañ séq ak ñoom kenn waxu la bul séq ak moom jàmm kenn waxu la bu ko bàyyi ca la muy dund kenn waxu la bu amee bu amee tiis bu ko jàppale waxuñu la loolu de waxuñu yooyu li nit di séq ak moroomam waaye cofeel ak bëgganteeg jàppante yooyu moom du am ci seen diggante mukk déedéet te xoolal tey allahu akbar ab julit balaa am fierté dafa am relation ak bu yéefar tey bu jàqee sax jàpp na ne sécurité mi yéefar beeg ko mën a sàmmal ba ponkal ba dikkee di xaabar xaabareeg di xam bu rëy ah naan yeneen saa salaam damaa bëggoon ñëw dimbale la mu ne ko inni la astainu bi kaafir ndimbalal yéefar soxlawu ma ko tey ñun ki gën a bëgg ndimbal mooy koo xamee yéefar yi gars yi kay ñoom ñoom kay ni ñu baaxee dañuy séddale nangam ñoom kay ñoom fu xare am xeex guerre am ñoom ñooy joxe nangam ñoom kay ñoom ñoo def fii seen hôpital fii ñooy def nangam ñoom kay ñoom seen école yi nangam nangam yàlla dani subhanahu wa taala wa ma manaakum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah yàlla mu ngi liñ def lu baax la lu jekk la ku ko gis kontaan ci waaye li tee ma nangu ko man yàlla mooy gëmuñ yàlla ñun xanaa duñ jàngal xuraan mbokk yi yàlla mu ni li ñuy def ci lu baax lu yeyoo ñu nangu ko la waaye li tee ma nangu ko mooy ñoom ay yéefar lañ allahu akbar moo tax ndeysaan gis nga yéefar yéefar moo perte dëgg dëgg dëgg yéefar moo perte gis nga am na benn waay bu ñu doon wax xaatim dafa tabe woon a tabe mën nga koo fekk nga ne ko su waaye sa mbubb mi laa bëgg dem musum mi may la ko def yaramu neen ñibbi këram xoola ko tabe ma àgg foofu fas lay war nga ne ko sa waay man awma lu ma war dem wàcc fas yu may la ko dem dox këram nga koy fekk mu dëkk nga ne ko xaatim jooytoo jooytu mu génn kër gi dem wuti geneen kër jox la moo tax arab yi ñiy jàngale luga ñiy jàngale lislaam ak ñiy jàngale lépp lu ñuy jàngale ci sharia bu ñee la da ngaa tabe ba mel ni xaatim rek mooy foofu la tagg ak tabe mën a yem yent bi ñu ko laajee ndax dina tàbbi àjjana mu ni ndax mas naa wax benn bis yàlla jéggal ma mooy gëmul woon yàlla allahu akbar gis nga mbokk yi jullit am na bénéfice de gëm yàlla kon ab jullit du am benn neexoo ak i relation akub yéefar ab yéefar àgg ci moom ci ak neexoo léeg-léeg sax nag yenn ci yéefar yi ci kaw seen bopp ci kaw bopp yenn jullit ñi la ñuy taxaw pour mën a bombarder ay jullit xam ngeen adduna bi ni muy doxee léeg-léeg fi addina bi fi ne fi mu toll waxuma la ñun ñi waaye ci international da ngay gis yéefar boo xam ni ci kaw mbaggam jullit lay taxaw pour bombarder beneen jullit moo tax ndeysaan borom waaja nee na garab daa jooy ñu ne ko garab loo jooy mu ne dañ maa gor ku la gor mu ne saa mbokk moo dajeeg sama noonu dimbali ko bañ gor ma aka wax dëgg gis nga sémmiñ gi weñ la waaye bant bi bant lay doon garab lay doon maanaam gii garab moo nangu ñu gor ko jël ci bant buñ booleeg weñ gi pour mën a ñëw gor ma nee mënu garab mu ne sama mbokk moo nangoo ànd ak sama noonu ndax weñ noonu garab la pour ñu mën maa gor looloo xew ci àddina bi tey wallahi booy booy déglu information wala nga xool àddina bi fi mu toll ñi ñu gën a yaakaaree lislaam ak lu mën a xew ci kaw suuf dara warul mën a xew même jullit bi lu mu sàggan sàggan sàggan sàggan sàggan même bu fekkoon defkatu bàkkaar la sax loolu digganteem ak borom la waaye warta tax nga mën a allié wu moom ak moom ngir ñu dar ab jullit déedéet warul mën a nekk loolu mënta nekk amul benn ci téere sharia yi foo xamante ni permettre nañ jullit mu def loolu dañ daan la kay yéefar ak yéefar ñoo doon xeex nga gis ni yéefar bii moo tane yéefar bee lu bon ak lu gën a bon suñ dajee sañ ngaa jël la bon bàyyi la gën a bon nga faral ki bon bàyyi ko gën a bon xanaa loolu ndax loolu sax am nay tegtal ci sunna kon ashiddaau ala alkuffar dañuy tar ci de moo tax ibni kathir mu ni yakunu ahadukum shadidan ala alkuffar rahiman barran bil axyar غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه اخيه da nga koy fekk mu nekk koo xam ni kuy ñëkk xar kanam lay doon soxor lool ci biir yéefar du ko yërëm ah waaye day ubbeeku xar kanamam yaatal ko ci kanamu mbokkum julitam kon ashiddaaw alal kuffaar kenn ku ne na ci na ci natt boppam ñaareel bi ruhamaa baynakum dañuy yërëmante seen diggante mbokk yi lii sifa la sifa la naat la mbokk yi aay yi buñ koy jàng rek di dem nañ ci natt suñu bopp loolu mooy njëriñul jàng alquran sifa la naat la yàlla moo décrire ay nit ni ñoom nii la ñuy mel moo tax ñoom laay nangul yow boo dikkee nattal sa bopp ndax ca nga bokk wala déet ruhamaa baynakum dañuy yërëmante mbokk yi ndax ñun ñu ngi yërëmante dafa mel ni dana qallabna al aaya ashiddaau ala al muminin ruhamaau ala al kafirin dafa mel ni yërëm yéefar bañ julit la xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ah mathalu lmuminin fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim kamathali ljasadi lwaxid ida ishtaka minha udwun tadaaca lahu sairu ljasad bilxumma walsahar su ma leen bëggoon a melal jullit ñi niñ war a mel même buñ ko melut nii lañ war a mel moom ku ko melut nag yow yaa yaa baaxut ci jàppante gi ci jëflante gi ci dimbalante gi mi ngi mel ni wennaw yaram addina bi yëpp ku fi nekk ci jullit dafa xonq ak daa ñuul ak daa xees ak daa xeeree rek yëpp yàlla mu ni mi ngi mel ni benn yonent mu ni mi ngi mel ni wenn yaram waa ji da doon monter bunt bi démb ci ngoon loxo bi tëcc ba fii dagg bu ñu xëyee ñu ne ah mu bànd loxo bi mu ni mënta xëy de parce que loxo bi day metti te moo ne amaana la muy liggéey sax loxo du loxo bee koy def waaye faw loxo bi solidarité ak yaramu yëpp dafa yeewu benn bët bi am aw ay laas dafa xaw a wànneen mu ne du xëy parce que bët bi yaram bi day solidarité ànd ak moom saa bu yaram bi amee fenn fuy metti rek mu ne taddaa laka sa lahu sairul jasad yaram yépp ay àndandoo bi sëhër bu guddee du nangoo nelaw wal xumma tàngoor bi nag ku nekk toog est ce que ñun sa mbokkam jullit bu amee lu ko métti da nga ko yëg déedéet doo ko yëg parce que far li ko métti yàq ko teg yow faf sax jullit ak mbokkum jullitam mu ni kal bunyaan yashuddu baaduhu baada mbokk yi xooleen bii misaal julit ak moroomam dañoo war a mel ni ab miir ab miir xoolal rek miir bi ndeysaan gis nga julit gis nga misaal mii misaal la moo xam ne rek doyoon na pour ñun ñëpp mbokk yi ñu koy xoolaat fi ne bi ñuy tabax jàkka ji am na ay briques yu ñu tuddee plein ñoom moom keroog bañ leen tabaxee lañ leen gëj a gis faw mbokk yi am nit ki faw mu am am koo xam ni faw mu nangoo nekk loolu faw faw ay lor di am di tege ci sa kaw nga di ko muñ tey birigi plein bu ni woon man de du ma nangu man de du ma waaye sama waaye yéen ñëpp ngeen di feeñ man kenn du ma xam ndax tabax bi dana taxaw déedéet waaye birigi plein day volontaire xam ni faw am ku nangoo suulu am ku tege ci kawam pour ñu mën a am jàkk moom mu nangoo tëdd ci suuf ñu war ci kawam ñun nag kenn du nangoo tëdd ñuy war sa kaw parce que du ma mbaamu kenn ngay wax bi ñuy tawax ba yegg si fii ci koñ bi gis nga bu ñu tojoon lii di nga gis birig boo xam ne daggit la ñu ñëw ni ko ah birig fii kat moom birig birig bu mat mënu fee dem de faaw ñu këtt la de mu ne am problème këtt leen ma maa daama bu ngeen ma këttee tabax bi dana jub mu nangu ñu dagg ko ci digg bi gis nga léeg-léeg di nga loru mu yëg mu wóor la ni yaa ngi loru nga xam ni yow am nga coobare ci loru gi waaye li tax nga nangoo loru parce que da nga xam ni après dina amal njëriñ lislaam ñun kenn du nangoo loru ah moom kay non ah man de sa waay affaire yi kat moom njëriñ loo fekkee qaayda yu bon yu yéefar yooyu njëriñ loo fekke bu doon njëriñ loo fekke defe nga ne ñi fi jëmbati garab ba nga màgg yow fekk ko fi di lekk di di nga ci am bu doon njëriñ loo fekke sa bàyyi lim am yépp ni na ko furaas mu faatu amul dara luñ ko miraasee defe nga di nga fekk dara ah bu doon njëriñ loo fekke ñi fi nekkoon doon doon jiite nañ lekk alale askan wi dee de bu doon njëriñ loo fekke ñëpp dañ koy jëfandikoo yow kon dee nga bu yàgg mbaa doo judd am na ay xawaay yu bon yoo xamante dañ koy wax ci suñu làkk waaye duñ ci bàyyi xel gis nga de ñu dema dema dem ba ca kaw a kaw a kaw am birig boo xam ne ñu ni ko yow dem niñ la daggee sax moo gën a métti ndax fii moom birig bi dafa xaw a rëy nañ ko lelli mu ne amul problème lelli leen ma gis nga yooyu yëpp ay xeeti misaal la yoo xam ne yonent sam ku mënoon a jàngale la wallahi mbokk yi saxaaba yi lii lañ doon dund fa man tadabbara sirata saxaaba kaana ala yaqinin fi hada ku jàng seen siira sacrifice yi ñu doon def aka dimbalante aka jàppalante ñaata yoon lañ leen fi nettali xare boo xam ni juróom benn ba juróom ñaari nit yoo xam ni kenn ku ci nekk yaa ngi onk ndax mar kenn ci saxaaba yi romb leen rek daw indi gurtab ndox bi mu téye ki ku njëkk ki bi mu téye di waaj a naan rek mu dégg kële di onk mu ne ko doon dama jox kee doog a dil sa parce que yaakaar naa kee ma gën a sonn kooku dégg keneen ci ginnaawam ku yonk mu ne ko joxal ko ko defe naa moom a gën a sonn waa ji dem ba ca juróom-ñaareel ba mu ne ko de- delluwaatal fa nga nekkoon nga toppaat rang bi rek moo gën a wóor bi mu delluwaatee fa mu tourné woon bi mu ñëwee fekk na ñoom ñëpp faatu nañ ñoom ñëpp maatu ala atash lu xew yu'thiruna ala anfusihim yu'thiruna ala anfusihim njariñ day ñëw nga jañax ko sa mbokkum jullit nga muñ allahu akbar saa bu yàqoo na nga ni wóor na ma ni maa ko yàq su baaxee na nga ni xam amaana diwul ndax xam naa bu doon mën a dara du ci baax tey allahu akbar mbokk yi ak am solo ak am solo tey xoolal li ñuy dund tey ñun amul kenn ci ñun koo xamante ni da ngay rafet njot sa mbokkum jullit kenn ku ci nekk fi mu nekk di yaa ngi ñaaw njot sa mbokkum jullit loolu póotum biir néeg la buñ ko bañee mooy li am buñ ko nangoo mooy li am kenn ku ci nekk yaa ngi dajeeg sa mbokkum jullit di ko sii ñàkk a reetaan fekk li nga ko dencal moo gën a ñuul këriñ amul kenn ci jullit ñi koo xam ni yenn sacrifice yu metti yi pare na pour def ko ngir mbokkum jullitam wallahi man ngaa yore lu sa mbokkum jullit soxla mu wóor la ni yow amoo ci soxla mbaa moom moo la ci gën a am soxla fuuf te jox ko ko du la wàññi dara te eñaane nga ko ko jox illa bi intérêt bu fekkee lalu na ca est ce que li ñuy wax ni kon nun yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy roy loolu dëgg la te nag ba tey boo seetloo am na ju ñuy góorgóorlu nag ñoo xam ne dunduñ lu mel nii de déedéet jàppalante gi bëggante gi suturaalante gi diw moo def nangam lu bon nga def du dëgg loolu gawma ko ah diw diw ni mu baaxee ni ma ko gisee kooku dina def loolu weddil ba keroog ngay gis loolu mooy mawqifu jullit ci mbokkum jullit Omar nee na jàppalal sa mbokkum jullit ñaar fukki ngànt ak juróom-ñaar amaana daa fàtte amaana daa juum amaana dafa nekk ci ay problème amaana dafa nangam amaana dafa bu la amaana ree solal neen amaana daa am ngànt bu ma xamut est-ce que noonu loolu la ñuy dund ruhamaa baynakum dañuy yërëmante mbokk yi àddina bi li fi nekk tey ci ay julit ni ñu toll àddina bi li fi nekk ci ay julit ni ñu toll ak organiser bi yàlla organiser l'islam nga xam ne alal sax warta nekk ñenn ñi di am di say say dem rek ñenn ñi di ñàkk di daw ginnaaw dem ba tax yàlla organiser asaka ni kay laa yàkkoon na duulatan baynal aghniyaa minkum ab julit di mën a xiif bay dee tey ab julit mën a feebar amut lum fajoo ba jaaree ca dee ab julit mën a am ay jafeñ-jafeñ ba far mooy yàlla te jafeñ-jafeñ yaa ko yóbbee te julit ñaa ngi fi wallahi ay julit ñi ngi fi yoo xam ñi ngi denc ay milliards yoo xam ne soxlawuñ ko ay julit laa wax am na kenn ci ñu yàlla baaxe koo xam ni allahu akbar ku yàlla baaxe la benn bis dañuy waxtaan mu ni ma ndax ku nekk Sénégal te moom moom wax loolu de ndax ku nekk Sénégal ak Sénégal ni mu bindoo ci jullit ñi ndax dina mën a denc ndax dina mën a denc moom loolu mooy problème ndax dina mën a denc xool ku ku yëg-yëgam fi mu toll ci koo xamante ni du benn waay bu mel ni man mbaa keneen nga xamante ni mu daa yorut sax lu muy denc moom faf ku war a mën a yor lu muy denc la xoolal tey ñaata sacrifice yoo xam ni jullit mën na ko def sauver mbokkum jullitam te du ko wàññi dara waaye du ko def da ngay gis sa mbokkum jullit muy souffrir ci loo xam ne mën nga ko caa dimbali ana iman ja ana bëggante ga ana soppante ga ana jàppalante ga ana ruhamaa u baynakum yërëmante gi ana ruhamaa u baynakum yërëmante gi yërëm sa mbokkum jullit taxawu ko subhanallah li ëpp ci yenn taxaw yi ngay gis day fekk intérêt daa am rek intérêt yi taxaw rek nga doog a taxaw sa mbokkum jullit mbokk yi loolu yent yàlla ba mu misaalee misaal pare dafa def nii mu ne gis ngeen baaraam yi ni mu roofaloo dugalante nii la jullit ñi war a mel jàppalante ruhamaa u baynahum dañuy yërëmante dañuy yërëmante di sàngante sutura xoolal mbokk yi sàng sutura ni mu amee solo sa mbokkum jullit def njaaxum ju toll ni bàjjo mu wóor la ne njaaxum la moom xam na ni def na yow xam nga ni def na nga sàng ko sutura lu tax nga sàng ko sutura parce que ruhamaa baynahum lu tax nga sàng ko sutura parce que yent yàlla bi man satara musliman satarahullah ku sàng sutura mbokkum jullitam yàlla sàng la sutura da ngaa dox ba yem ci sa mbokkum jullit muy mooy yàlla mu wóor la ni lii mooy yàlla même gis ngeen ci sharia bu l'islam doon àtte ah qaadi am yow nga dox ba gis kuy mooy yàlla nga am possibilité man koo boole te nga nëbbu ko boole woo ko ngir waar ko na tuub doo ci am bàkkaar ndax yent yàlla mun idra'ul xuduuda mastataatum atte yi moom bu yeboo ngeen nëpp nëppal ko mu bañ a yegg si fi qaadi war a atte lu ngeen man ndax bu yegg si rek muy cawaate ça veut dire que mooy ngir xam nga ni njuumte moo ko dal te jàpp nga ni boo ko waaree mu dellu gannaaw mën nga ko bañ a boole yow mën nga ko bañ a signalé loolu boo ko defee doo ca bàkkaar tiyaaba nga ciy am faf bal sharia yegg na ci yow mi def bàkkaar bi sax suturaal sa bopp bu fekkente ni yow dang yaa ko yëg mën nga kaa bañ a wax qaadi te nga jéggalu sa borom boo ko defee kenn du la am bàkkaar nga nga nga sa sa waaye bu agsee ci qaadi nag moom jeex na est ce que tey ñu ngi suturaalante dafa mel ni ñun xaw wi sa suturas mokkum julit dafa mel ni loolu sa waay tàngal tàngal bu ñuy màcc la dafa neex ci ñun xaawi sa sutura su mbokkum julit nga gis koo xam ni xamal na mbokkum julitam loo xam ne gis nga bu ko ko waxoon tey dana génn dëkk bi yépp Sénégal lay génn tuxu laa wax waaye mu ni cel du wax dara nga gis koo xam ne gis na mbokkum julitam muy souffrir mu wóor ko ne kii séquñu dara ci intérêt àddina mu dimbale ko ngir yàlla loolu mooy raxamaa baynakum yërëmante bi yërëmante jàppalante suturalante jàppalante ngant jàppalante ngant nag nag ñun ñun nin nin bëgg a dundee yàlla sax sant nu ñuy dundee noonu yow daal da nga bëgg waa ji chaque jour na ñëw jàkka ja chaque jour bu mu tardé bu mu am benn benn benn benn erreur bu mu def bu mu def benn bàkkaar yow benn yoon yow benn fen nga mas a xam waa ji fen ko benn fen bii moom xool nañ ko ba xam ne moom dafa fen waaw benn fen boobu war na tax nga jàpp ni kii ku bon la pourquoi bàkkaar la waaye pourquoi du ko war a mën a rëcc parce que nit la moomu tuumaal waxal ma loolu tuuma la saxaaba yi am na ñoo xam ne dañ daan def erreur yooyu waaye mbokk yi dañ daan set wecc après xasaan ibni thabit xoolal ka yonent bi ne woon yéegal ci kaw minbar bi nga tontul ma yéefar yi jibril a ngi nii taxaw ànd ak yow xasaan moomu ca la ko jibril doon dëgëralee muy làmmiñ wa ca la ca la juumee muy bañ tuumaalee Aïcha mu wax ca lu ëpp dafa juum ñu indi ko ba ci buntu jàkk ji caw ko fa xasaan xam na ta bint jaxsin ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon mbokk yi ashiddaau ala alkuffar tarce bi yéefar waaye ruhamaau baynahum yërëmante seen diggante suñu borom ni taraahum da nga leen di gis rukkaan ña ngay sujoot ña ngay rukoo ah sujjada ña ngay sujoot ay jullikat la ñuy doon yabtaxuuna di sàkku fadlan ay ngëneel min allahi fa yàlla wa ridwanan ak ngërman ibni kathir mu ni wasafahum bi kathrati al amal wa kathrati alsolaa wa hiya xayru al amal yàlla melal na leen ci bari ay jaamu yàlla melal na leen ci bari ay jëf waaye melal na leen ci sellal waaye melal na leen ci julli yu bari moo tax yàlla fayee leen lu rëy rëy rëy ndax borom bi nee na wa ridwanun min allahi akbar ngënam leen di xaar ci yàlla moom moo gën a rëy lépp sunu borom ni siimaahum bokk na ci seeni mandarga siimaahum ay mandarga ya seeni mandarga fii wujuhi ma nga ca seen xar kanam ya min athari sujud ngir jeexintalu sujud yu bari ya ab jullikat gis nga de melokaan muhammadun rasulullah walladina maahu seeni misaal ak ñi ñu seen ginnaaw rukkaan sujjadan ku dul rukkaa bokkoo ci ku dul sujjadan bokkoo ci loolu tamit na leer de laa xayra fii ba gaa yi dikkee ne yonent bi daal ñun l'islam lépp mën nañ koo def waaye ñaari yëfa ngi moom daal mënuñu ko moom ñu ni ban ñu ne am nañ yàlla ji ñu tuddee ci dëkk ba rabba rabba moom ku ko laal da ngay dee moom ñun duñ ko laal bi ci des mu ni ñun nag mooy sawaay di sëgg ka siggi mel ni kuy entraînement ñun loolu mënuñu ko yonent bi daal dañ leen ne bu dee rabba dinaa yabal saxaaba yu ko cor mu daanu bu dee julli nag laa xayra fii diinin laa salaata fii diine ju amul julli moom jàmm newu ca xam ngeen ni saxaaba ya nañ baaxee ak Abubakar ak Omar ak niñ sësee woon ci yonent sasala ak niñ ko jegee woon bu doon wàcc julli defe naa des nañu ko wàcc ñoom ñoo ñu wax dëgg yàlla waaye nga nekk ci xare baag nga nekk ca nangam suñu borom mu ni même boo nekkee ci xare man damay wax ni gis nga mbirum sharia bu doon ay sentiment la ak mbirum xel ñu teg ko ci doomu aadama man buñ ma ko joxoon dama naan bu ngeen nekkee ci xare bàyyi leen julli ndax loolu la ma sama xel jox waaye sharia nag law kaana diinu bi ra'yi la kaana asfal al xuffi awla bi masa min ala su doon mbirum xel la bu ñuy masaa xuff ca su kaw la ñuy suuf la ñuy masaa bàyyi kaw waaye mbir mi du mbirum xel suñu borom subhanahu wa taala mu ni seeni mandarga ma nga ci seeni xar kanam foofu nag borom xam-xam yi juyoo nañ ci ñenn ñi ni ak leer la gu yàlla def ci seen kanam ñenn ñi ni déedéet mandargam ndax xam ngeen nit bu yàggee sujjóot bu yàggee lum gàtt gàtt gàtt xam ngeen xar kanam gi day am tomb bu fa nekk waaye nag bàyyil xel ni li gën a dëgër la gën a dëgër donte lii mandarga mii nekk ci xar kanamu aji sujjóot ji ca la ca la bokkut ak moom la xam nga yooyu wolof ma wax leer na wala déet ci la waaye deesu ko firee toog deesu ko ko firee toog kenn ci salaf biñ ko laajee ni ko waaw ndax lii kese la mu ni déedéet ndax léeg-léeg di nga gis ku ko am ba noppi te fekk la ne ca xol ba moo gën a ñuul këriñ loolu la wax mu ne la ca xol ba moo gën a ñuul këriñ ibni kathir mu ni ali ibn abi talha nee na ibni abbas mu ni siimaagum fi wujuhihim yaani assamtu lxasan
soo ne jàkk seen xar kanam da ngay xam ni kii jaamukatu yàlla la du caagee ne mandarga ma la waaye eh, dafa am ak leer goo xam ne yàlla da koy defal jaamukatu yàlla imam mujahid ak ku dul moom nee na alxusuu wa tawaadu ni mu toroxloo ak ni mu ragalee yàlla mooy feeñ ci xar kanam gi kenn ci ñoom ku mel ni xasanul basri defe naa moo ko wax mu ni inna lil xasanati nuura defum tuyaaba mel ni julli dafa amuk leer nuuran fil qalb dafa am lumière bu muy naan tay ci xol bi wa duyaan fil wajh dafa am lumière bu muy sànni ci xar kanam ga wa saatan fi rizq dafay am yaatal gu muy def ci sa wàllu wërsëg wa mahabbatan fi qulubi nnaas nit ñi dañ lay bëgg te du ñu xam lu tax ñu bëgg la fekk lumière boobu la lumière bi daa ñëw ni say benn ci xol bi ni say benn ci xar kanam bi ni say benn ci xolu nit ñi allahu akbar sa xar kanam dafay leer ah kadalika sa xol day leer nit ñi tamit dañ lay bëgg Othman ibn Affan doon na wax ni doo nëbb say jëf rawatina say jaamu yàlla di ko sellal lu dul yàlla moo koy feeñal ci sa xar kanam ba nit ñi gis ko feeñal ko ci sa làmmiñ ba nit ñi dégg ko même boo ko bëggut imam ahmad toxal na ci musnad ñu jëlee ci abdullah ibn abbas mu ni yonent bi nee na salaa sallam inna alhadiya alsaliha walsamta alsalih wal iqtisaada juzun min xamsatin wa ishrina juzan min annubuwa nee na gis nga yoon wu jub tege ci tege ci raay bi ak noppi amuk dal ak digg doomu doo ëppal ci dara lii de ab xaaj la ci ñaar fukki xaaj ak juróom yoo xamante ni ci yonant la bokk te hadis boobu hadis la bu wér saxaaba yi ridwanullahi alayhim sellal gu ñu sellaloon seen diggante ak seen boroom ak jaamukat jaam nekk gi ñu nekkoon jaamukati yàlla moo tax seen i xar xar kanam dafa leeroon moo tax imaamu Malik day nettali nee na nasaara yu yàgg ya dañ doon wax ni suñu gisee saxaaba yi alladina fataxu shaam wallahi la haulaai xayrun min alxawaariyin même ñoom duñu ay jullit de waaye bu ñu masaana seen jullit ñi ak seen leeraayi xar kanam yi jaamukatu yàlla yiñ doon dañ naan dëgg dëgg dëgg neexut ba neexut nag Isa lan topp waaye ña toppoon Isa day xawaariyun ñii topp Muhammad di asxaabuhu ñoo leen gën te ñoom bi shahadati aadaihim seeni noonu ñoo doon wax loolu xam nga sab noonu nag bu ko muutalee muutale xam nga sab noonu bu waxee rek xam nga ni muutale nan ko lu yàgg yàgg yàgg sab noonu bu la xamalee lu baax wax ko muutale na ko muutale muutale muutale daa xam ne mën mënatu koo denc boo daal di koy génne gis nga kon borom bi subhanahu wa taala mu ni siimaahum fi wuju min athari sujud mandarga moo muy nekk ci kanam cala waaye nag du ko moom kese parce que léeg-léeg nit dana ko yore ba noppi fekk xol ba la ca nekk gën a ñuru këriñ kon jullikat lay doon sujud kat lay doon ruk imam xasanul basri benn bis benn waay dani ko man dafa am masala mu may laaj mu ne ko looy laaj mu ne ko dama seetlu jullikatu guddi foo ko fekk dafay am lumière boo xam ni du kudul jullikatu guddi mënoo ko am loolu nag seetlukat yee moo ñoo ko mën a am inna fi dalika la ayatin lil mutawassimin inna fi dalika la ayatin lil mutawassimin gis nga am na ñoo xam ni yàlla may na leen ak mën a seetlu loolu nag ci leer gu yàlla subhanahu wa taala defal ab jullit la muy firaasa waxoon naa ko ci ay dar suy wees ñu ne ku dul jullikat doo ko mën ñu ni ko lu tax muy dañoo weet ak yàlla ca lëndëmtu ko di lëndëmtoo ko làmbatu yàlla ñaas leen ca leeram nga subhanahu wa taala allahu akbar simaakum fi wujuhihim min athari sujud sunu boromu ni dalik nii nga ko gisee nag nii ñu la ko nettalee melokaan yi mathaluhum fi tawraat nii la leen yàlla melale woon ci tawraat est ce que xam ngeen ni tawraat ak injil niti Muusa niti Isa xamoon nañ xeetu Muhammad ni ñuy mel parce que amul yonent bu ñëw rek lu dul day publicité Muhammad ba ki mujj mu ne wa mubashiran bi rasul yati min baadi kii moom min baadi la ñee dañ doon wax dina ma sa ñëw gis xoola masiha dajal ak seegul yonent yàlla bi ne amul yonent bu yàlla mës a yónni lu dul leeral na masiixu dajal ni mu war a mel man yonent bi nar a mujj nag maa koy leeral leeral goo xam ni kenn musu koo def te bokk na ca mooy benn bët ba daa patt te seen borom pattu te lay woote ne mooy yàlla sallallahu alayka ya rasulallah gis nga de sunu boromu ni dalik nii nga ko gisee matalugum seen misaal fi tawraat ca téere boobu tawraat yàlla wàcce woon ko ca Moussa alayhi salaam wa mathalukum seen misaal nii la meloon fil injil ca téere bi yàlla wàcce woon ca Isa muy injil di bible sunu borom mu ni ka zar'in mi ngi mel ni am mbay axraja shatahu mu facc mbay mu facc facc ak focc nag bokkuñ facc ak focc facc mooy buy doog a génn jékki-jékki boo boo jiyee gerte wala nga ji dugub wala ñebbe wala dara ñetti fan nga yam ñeent rek nga gis ñëw facc facc gi mooy day day day tël suuf si rek teen ak moom nga gis doomu gerte bi commencé génn xob yi daal di lang ca kawam ah suñu borom ni kazarain mi ngi mel ni am mbay moo xam ni axraja dafa génne shatahu axraja shatahu mooy daa facc mooy daa génne cariya ah fa azarahu mu daal di dëgër këcc ndax reen ya fastaglada mu daal di dëgër sampu fastaglada mu dëgër sampu fastawa ala suuqi mu daal di taxaw jon fastawa ala suuqi misaal bi su ma ko doon jël dama koy jël ci dugub dugub ab baykat dëgg ku dëkkul ndakaaw ñee bay ci àll ba bu fekkente ni bay daa jege si am nañu lu ñuy tuddee faru faru mooy taw bi tawagut nga dem ji gerte ga dugub ji dugub ji noonu ci sa machine loolu la ñuy tuddee faru am na lu ñuy tuddee tex tex mooy nga bàyyi ba mu taw ndax am na xeeti dugub yoo xam ne kenn du ko faru da ngay bàyyi ba mu taw nga dog koy tex tex mooy ji ko ci kaw tooy tooy bi boo ko defee ay fan ngay am ñëw rek fekk mu facc nga seen car yi commencé di génn mi ngi tël suuf si bu amee ay fan nga seen mu commencé màgg di sànni ay car loolu mooy axraja shatahu mi ngi génn ay car car dem fii car dem fee car dem fee fa azarahu mi ngi dëgër di jëm kaw nga gis mu commencé màgg foofa lay toll fu ñu koy xottee wala wolli bu dee xotti machine moo koy def bu dee wolli gopp a koy def muy loxo nga xam ne nit ki day ñëw cos ci taat wi maanaam sëq gi mu sëq bàyyi ay car soo ko bàyyi woon mu màggee noonu gub yu sew ngay am dugub ju tuuti waaye boo ko wàññee lelli ko dugub ju dijj ngay am moo tax benn borom xam-xam loolu la xoolam yàgg muy dëgg dëgg dëgg joxe joxe asaka am solo ngi ndekete ndekete yëf yi sëqaay bi boo yaakaare ne mooy tax mu gën a bari da da koy da koy da koy yàq waaye faw nga ñëw lelli fii sànni fee lelli fee sànni fee pour gub yi mën a dëgër gis nga alal yi saa boo ciy joxe rek day doon lekku saa booy joxe rek day doon lekku yent mu ne maa naqasat maal min sadaqa moo tax ma ne leen woon ku amoon 10 000 sarxe 2500 ñaata la dese gars yi ni 7500 ma ne déedéet 10 000 la dese ci 10 000 la dese yent bi ne maa naqasat maalu min sadaqa maadaama da nga koo sarxe rek alal ji wàññeeku wut léegi nag 10 000 10 000 mooy 2500 égal 7500 waaye 10 000 mooy 2500 yuñ saraxe égal 10 000 waaw loolu nag moom calcul la boo xam ne xam naa ne moom yaakaar naa ne mathématique say àddina bi yépp boo leen woowoon dañ naan déedéet waaye ci l'islam noonu la de 10 000 moins 7 moins 2500 égale 7500 10 000 moins 2500 yuñ sarxe fii sabilillah égale 10 000 waaw mooy maa naqasat maalu min sadaqa fii ak da nga koo sarxe rek alal dara wàññeeku dara jugu fi ba léegi dara jugu fi léegi nag loolu nag loolu nag mathématiciens yi duñ ko duñ ko mën mënuñoo calculer loolu parce que seen xam-xam yeggul foofu xam nga nag wax dëgg yàlla nag am na loo xamante ni nag moom nit ki noonu rek la man na ko parce que xamut loolu xamu ko xam nga fi ne boo ne waa ji 10 000 mooy 2500 yu ñu saraxe mu ni égal 10 000 mu ni déedéet déedéet déedéet parce que xamu ko bu ko ci meeree ndax xamu ko da ko xamut bu ko xamoon bu xamoon du wax loolu sunu borom subhanahu wa taala mu ni kon gis nga dugub ji noonu mu mel fa aadarahu ma ngay facc di génn nga daal di wolli xotteeg machine bàyyi nag mu jub fastawa ala suuqi gis nga booy xotteeg machine ba noppi rek fastawa ala suuqi yi moo ciy topp moo tax gis nga aaya ji boo demoon ba ca kaw ga nga di ko firil baykatub dugub day yaakaar ne aaya ji dugub a ko tax a wàcc parce que misaal mi gën a jekk ci moom ci li ñuy bay man dugub nag su ma ko waxee mooy basi baak suuna baak mboq baak ila axirihi fastawa ala suuqihi mooy day samp bant nag léegi léegi ay car la woon waaye fastawa ala suuqihi benn bant rek mooy samp jëm ca kaw mooy bantab gattax gis nga bu demee ba ca kaw day faccaat geneen facc faccuk ñaareel gi mooy day génn aw gub gub mooy loolu nga xamante ni ca la dugub jay sax gis nga bu ca génnee baykat bi jaaraat ci bayaat ko bayaat gi day mel day moo koy gën a suqali ndax reen yi gën a dëgër mu commencé def li ñuy tuddee palpal palpal mooy loolu yu niroog tóor tóor nga xam ne day xaw a jaune mu daal di koy feesal ci gub bi yépp gis nga su palpalee ba noppi rek day daal di commencé génnee fépp fastawa ala suuqi su ko defee gis nga saa bu tollee foofu rek yujibu zurra gis nga baykat balaa am lu ko yéem ci nawet rek mu toll fii moo tax damay wax ne aaya ji boo demoon ca kaw ga da nga yaakaar ni mbay mbayum dugub a ko tax a wàcc gis nga baykat balaa kontaan ci dugub ji rek mooy fastawa ala suuqihi ba commencé palpal bu palpalee ba commencé ami dugub foofu nag da ngay commencé am yaqin ni ren kat nawet dana baax parce que fii ak àggul foofu rek baykat bi daanaka du mën a est li ñu tuddee estimer yujibul kuffaara ah yujibu zurraa ki nga xamante ni mooy baykat bi daal di yéemu la tax mu lan moo tax mu yéemu ndax affaire bi ni mu rafetee gis nga foofu nag tool yépp ay ànd rafet foofu moom baykat bu doxan bay bi tàkk saan nga def doxantu ca tool da ngay kontaan moo tax boo seetloo baykat yi waxtu woo la ñuy faral di doxantu lu tax parce que waxtu woo boo xoolee tool bi ni mu maasee ànd focc facc palpal sa xol bi day sedd mooy ah ajabal ah ah lu ci nu aay ji tëddee yu ajibul borom bi subhanahu wa taala mu ni dafay yéem ki nga xamante ni moom mooy baykat bi lan moo koy yéem parce que dugub ji ni mel li yaxiisa bihim alkuffar ngir mu merloo ki nga xamante ni moom mooy ab yéefar misaal bi yàlla da ko joxe ci gàncax waaye dugub moo ko taxawaat maam am jullit ñi ñoo ko taxawaat moo tax al allaama ibni nasir assaadi mu ni gis nga mbay mi ni mu amalee njariñ nit ñi noonu la nu mu tuddati jullit bi ku gëm yàlla ki abalee njariñ li nga xamante ni moom mooy waa àddina bi gis nga borom bi subhanahu wa taala lii mu tagg yonent bi sa ak ay saxaabaam mbokk yi imaamu malik imaamu daaril hijra rahimahu llahu taala ci aaya ji ci la istinbaatee istinbaat mooy borom xam-xam bu mag bu yegg ci daraja ju kawe ji comme malik xool jenn aaya génn ci ab atte te loolu borom xam-xam yu mag yi may nañ leen ko imaamu malik ci aaya ji ibn kathir mu ni intazaa al imamu malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfiri rawafid alladina yubgiduna alsahaba radiallahu anhum imaamu malik ci aaya ji la sukkandiku pour ni képp koo xam ne ci rawafid yi nga bokk muy xeeti chia yi nga xam ne dañuy xas saxaaba yi nee na ñooñu ay yéeféer lañ mu ne lu tax moo tax ak imaam abu bakrin ibn al arabi te am na ñeneen ñu wax ne sax wax nañ ko ku mel ni ibn taymiya mi ngi koy nettali ci منهاج السنة النبوية ابن العربي من كوينة لتي العواصم من القواسم معرفة مواقف الصحابة رسول الله ak ñeneen ak ñeneen ñu ni gis nga gaa yi yonent bi lañ bëgg a saaga te ñemewuñ ko ñu saaga saxaaba yi parce que xam nañ ni saxaaba yi ñooy xamalati alqur'ani wa sunna kon ku leen saaga saaga ga kee xam nga tey kilifa bu yablee ci yow ah ndaw li ñëw nga ne ko waaye nangam taan waaye daal di weccax loxo wala fi dañuy wax ni saaga woo ndaw li ñëw waaye ka yónnee nga respecté wul moom nga saaga ibni arabi mu ni gars yi loolu lañ bëgg moo tax imam ib malik waxam jiide wax la ju wér képp koo gis muy ŋàññ ak ay xas ay saxaaba kooku bul rafet jot ci moom imam ahmad doon na wax ni bokk na ci mandargay ahlu sunnat wal jamaa muy bëgg aw bakar ak omar lii nag mbokk yi chia yi ñoom lañ ko xamee woon mu ne tey jullit ñaa ngi koy def min xaytu yadruun aw laa yadruun di ŋàññi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ŋàññi yonent bi moo ku ŋàññi sunnaam moo ku ŋàññi ay saxaaba ñoo bokk benn at semaine bii passé am na benn rajo ci rajo yi maa ngi koy déglu dama ubbi rek yam ci comme dinaa déglu xabaar léeg-léeg ñu def wax sa xalaat may déglu am ay gaa yu woote xaw ma fan ak fan lañ jotee loolu mu conseillé ndax loolu ñu jotee la joteel ci diggante sunna ak bidaa ma dégg gars yi di woote di sëpp ab waay boo xam ne nee nañ dañoo am ak moom ci seen jàkk loolu ñoom la concerné waaye la ma ci yitteel moom laay wax nii mooy ña ngay ŋàññi góor mu bàyyi bañ a buubal tubéyam mu cëkkal ko di ko xas di ŋàññi bàyyi sa sikkim ak yeneen ñaari dama ci gën a intéressé moo tax ma wax ko yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam moo ni tubéyu góor amul droit ci passé dojor jëm suuf loolu yonent bi moo ko wax nga ni ha mu ni maa asfalal kaabayni fi naar dama ni la sax lu romb dojor jëm suuf yàlla lakk ko ci safara nga ni ha yonte mu ni in kunta abdallahi farfa isaarak ey yow xanaa nangu woon ne jaamu bi yàlla nga mu ni ahankay mu ni ko bu dee jaamu yàlla nga yëkkatil sa tubay ji nga ni ha mu ni fala xaqa lil idaari asfalal kaabayn tubay amul droit dem ba passé dojor di buubu sikkim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ufu liha jàmmal leen ko xoolal wallahi utiya jawami al kalim waxul sax yar leen ko ufu liha jàmmal leen ko xam nga ni koo jàmmal doo ko dagg irqul liha lëwal leen sikkim koo lëwal doo ko wàññi képp ku la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tubayam daana weesu dojoram jëm suuf wala mu wax la daana jémp ab sikkimam wax na lu amut fi diinillah gis nga keroog damaa amoon ngàntal woote bi ma gisee gars yi di xas loolu damaa amoon ngànt ci woote waaye dama naroon a woote su ma woote woon dafa am benn kàddu gu gàtt gu ma bëgg a wax waaja dama ko bëggoon wax ni ko bunt bii day tëj leen ko bunt bii nga tijji tëj leen li tax tëj leen ko mooy yéen a ngi xas ñaar yoo xam ne du ma wax sunna yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye même mag yi ñuy topp fii ci Sénégal sax noonu lañ doon def xoolal li ma leen wax mag yi ñuy topp fii mag yi ñuy topp fii xoolal la seen photo yi nga xool seen tuba ya xoolal seen tuba ya bañ nañ ko ba caaya lañ doon sol te caaya xamul buubal gis nga caaya tubay ju maandu la caaya caaya paa yi ak a ñoo fonkoon caaya am na way wu fi sénégalais di way ah way la woo xam ne aw way la waaye en même temps dafa am lu ca nekk mooy caaya neel tekk su ma demee ndar xotti tubay sànni la ca ñag ba xam nga loolu aw way la wuñ daan way mag ñi caaya rek lañ daan sol daanaka parce que caaya amut loolu caaya bu bu kiyee nga nga daal di ko dabb daa xewaat di ko bu dagg nga caaya neel tekk mooy defal ndànk rek ah bu ma demee ndar booba ndar moo nekkoon capital du Sénégal du du doon Ndakaaru su ma demee ndar xotti beneen tuba yi caaya sànni la ca ñag ba yow dootuma la solati paye loolu lañ doon wax waaw caaya neel tekk su ma demee ndar xotti tuba yi sànni la ca ñag ba gis nga caaya tubay ju maandu la man it dama ko doon wax ni ko mag ñi ñuy ñi ñuy topp nii boo leen xoolee ñaar yi ñuy xas dañ ko doon def te it nag yéen a ngi dugg ci domaine boo xam ne bañ leen cee dugg fii leen juddoo fii leen jàngee am na yun xam ci réew mi yoo xamante ni ay ayiba ki sikk la yéen a ngi tudd ay ayiba ki sikk am na ñu jàng ñu nekk ci réew mi xam nañu ayiba ki sikk daal di noppi xam wax bu yabee xam ba ca am na ñaar ñi ku ca gën a yaru morom wasalaam wallahi dama réccu lu dama amoon ngànt woote waaye lu dama ne kii kii kii ki jiite débat bi ku am xel la gis nga boo ko waxoon loolu dina xam li ma ko wax lan laa jublu ci loolu mooy am na yu fi nekk yoo xam ni ñi ngi koy askanee diine te du diine nit ñaa ngi koy foogee mbub mu weex tal te daa ñuul kukk te ay doomi réew mi lañ fi leen dëkk xam nan yu bari bunt yii mbokk yi nan ko bàyyi nan ko bàyyi de su ma ci doon junj damay wax lu gis nga li may wax lu clair la lu leer la fii Sénégal lu waay di wax na leer bari waa na fi ñoo xamante ni ñu ngi leen di yaakaar di leen nangam di leen nangam te duñ doomi yoon. billahi wallahi tallahi duñu doomi yoon de seeni baay da leen a joxoon santu kër gi rek ñu suturaal mag ñi xam nan ko am na mag yuy dund borom 80 ans yi xam nañ li may wax te du ci benn du ci ñaar nag ba ba ñuy miraas la ko paayee dugg ci biir néeg waxante ko fa ngir xam nañ ni xel lii moom daa amoon waaye kii warul doon buñ wax loo ñu war ta wax nag. am na yoon xam de fii lan dëkk mosunoo génn réew mi duñu ay étranger duñu ay leneen fii lan dëkk xam nañ fi lu bari waaye dees nopp parce que sutura baax na te it am na yoo xamante ni jërul di wax moo tax gis nga yéen fitna yi jërul taal gis nga boo nekkee moom micro ngay wax am na ñoo xamante ni xam nañ yu bari yoo foogut te buñ ko waxoon tey jii dëkk bi lakk loolu ab junju la rek wal isharatu takfi li man aqal kon mu ni képp koo gis muy xas ak a bañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam sunnaam nee na kooku bokkul ci maanaam ci jullit ñi sunu borom subhanahu wa taala mu ni fastawa ala suuqi yujibu zurra baykat bi yéemu lool li yaxiisa bihim alkuffar borom xam-xam yi tafsir yi ñu ni loolu mooy jullit ñi bi ñuy doog a tàmbali gis nga mbay bi suy doog a facc ay bilaal yonent bi xadija ali ñu tuuti lañ woon nga xam ni booy xool sax doo leen gis ci dëkk bi ndax niñ tuutee ñu dem ba mu yàgg affaire bi commencé ñu dem ba mu yàgg sawaay bi ngay bay ak leget ngay yenn yóbbu ba ngay góob ay sareet wala ay oto nga ko yëpp indi gis nga noonu ñu barkeelee noonu la yàlla def julli ñi barkeelee noonu noonu ñu amalee njariñ baykat noonu la mbay mi amalee ah jullit ñi amalee ñi ci des njariñ reen yi ni mu dëgëree laaj leen baykat bi su dugub ji palpalee ba ba am ay gub nga ñëw nga góob ah soo góobee ba noppi ga bant ga tax ga taxaw laaj leen baykat yi fekk reen yi jafndu na ci suuf si ba dëgër gis nga bis booy tëral gattax gi ah boo yorul ab roq li ñu tuddee roq roq benn bant la bu gudd nga dem ba ci kaw mu def ñaari cat nii ci suuf gi am benn weñ boo yorul ab roq di ko ko gejji du gaaw a di dañ ah belu yenn kaw kaw yi roq lañ koy wax roq bant buy def nii la lii day taxaw amug weñ fii ci suuf comme gopp ci kaw def ñaari cat nga xam ni booy tar wala ngay ngar booy dajale gerte gi boobu ngay jëfandikoo loolu nag baykat yee ko xam borom bi subhanahu wa taala mu ni noonu ñu dëgëree ca suuf sax noonu la ñu ngëm yàlla dëgëree moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni waada allahu yàlla dig na alladina amanu ñi gëm yàlla minhum ca ñoom ah wa amilu salihat tey jëf-jëf yu baax minhum ca ñoom magfiratan ngërmande yàlla digal na leen ngërmande moo tax saxaaba ya mbokk yàlla gërëm yonte bi ne laa tasubbu asxaab yi bu leen xas samay saxaaba fa wallahi kiñ naa ci yàlla fa walladi nafsi bi yadi ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom muy yàlla law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu allahu akbar saxaaba yi damay wax ni buñ amuloon benn ngëneel budul xadis bi doy na wa kafa wa kafa salaasa marraat bu leen ŋàññi saxaaba yi gis nga yéen ñii ku jëloon lu toll ni montagne oxot ci or wa ma adraka ma oxot montagne la boo xamante ni sum waay guddaay ba nii rek waxuma nii guddaay bi nii sa waay 14 kilomètres la wër 14 kilomètres lu toll ni 14 kilomètres nii te njool ca kaw soo ko posé woon ci or lii su mooy lii lii waa banque mondiale bu ñu ko amoon sëñ bi kon dañuy bajantu loolu dañ ko ma loolu mënuñu ko am ni banque addina bi yépp laa banque addina bi yépp Amérique Asie fépp foo dem ci addina bi nañ dajale li ñu am laa wax ci or mënta toll noonu déedéet yent yàlla ne boo ko amoon ci or nga génn ci penc mi woote àddina bi yépp ñëw nga sarax ko fii sabilillah ba pare te sell na mi ngi tolloog benn saxaaba bu xëy dégg ko yalwaan mu dem tibb benn tibbab dugub sarax ko ko yent yàlla mi kooku moo la ëppale nga ni ha mu ni aw nasifa wala mu wàcc baccal ko xam nga tibbub dugub sax rëy na mu ni même bu ko wàññee aw nasifahu même bu ko wàññee sax genn wàll gi moo la ëppale laa ilaha illa allah ooru àddina bi yépp buñ ko dajale woon benn waay jël ko saraxe ko fii sabilillah mu sell yàlla poyante ko benn saxaaba dem tibb tibbab dugub saraxe ko wala mu xaaj tibb ba mu saraxe ko yonent bi nee na saxaaba la ëppale kon bu leen leen ŋàññ allahu akbar lii mbokk yi ko ko xam ngay tëkkale saxaaba ya kenn ci kaw suuf man damaa yaakaar dañ laa war a jàpp yóbbu la faan xool su bopp bi ndax daraa ngi ci wala déet kuy tëkkale saxaaba yi waxuma tëkkale yonent bi ak keneen loolu moom waxuma ko dama ni kuy tëkkale saxaaba yi ak beneen nit bu mën a doon pour man dañ laa war a yóbbu yóbbu la ci lali faan yi wala fële ñuy fële mbaaw foofu ñu yóbbu ñu feebar ñi ñu xool sa bopp bi ndax daraa ngi ceem déet allahu akbar koo xam ni yow bu saraxee génn wàllu tibb mooy tolloog nga saraxee lu tolloog ooru àddina bi yépp te moo lay ëppale tiyaaba tamit teg ci kooku kenn mënu koo dab moo tax radiyallahu anhum wa radu anhu sunu borom mu ni waada dig na allahu yàlla alladina amanu gaa ñi gëm yàlla wa amilu salihat tey jëf ay jëf yu baax minhum ca ñoom magfiratan yàlla jéggal na leen seeni bàkkaar yàlla mu ni dig naa leen jéggalu bàkkaar allahu akbar mbokk yi saxaaba yi wax dëgg yàlla daloon nañ xel nag allaaxira ak la fa nekk ci tiis bàmmeelal la fa nekk ci lëndëmaay ak tàncaay ba ah idan shamsu kuwirat idan nujumun kadarat idan samaun fatarat idan samaun shaqqat ah yooyu yëpp affaire yi li mu rajaxoo yëpp yow moom laa yaxzunul fasawul akbar yow moom yàlla newoon yow maam allahu akbar moo tax da ngay jàng siira bilal mi wax ni bi muy faatu dafa wax soxna si defaral néeg bi cuuraay ko tijjil bunt bi dama am ay gan tey dama am ay gan soxna saa ngi yaakaar ni ñii Shaam la ñuy jóge wala Kuufa wala Basra wala nangam ndekete boobu bis boobu xam na ni mi ngi toll ci axiru ramaq min xayaati malaaka yi la doon wax ah malaaka yi marhaban marhaban gadan alqal ahiba muhammadan wa sahbaha yàkkamti naa dajeeg yonent bi ak ay saxaabaam ah xelam dal na yonent bi nee na ko waaw bilaal kaay mu ñëw mu ni ko yow loo def ba ma dégg say tànk biir ajana allahu akbar mu ni ko man mu ni ko waaw waaw dégg naa capar capari tànk ma ni ko kan ñu ni ma bilaal wax ma lu xew mu ni ko xanaa saa su ma jàppeetee daal dinaa julli ñaar ak loolu de xam nga leneen lu ma saxoo lu ma amee yaakaar lu dut loolu mu ni ko fa daaka këf kaa ngoo loolu umu sulaym yonent bi ni ko kaay yow it mu ñëw mu ni ko yow de dégg naa sa cappar cappari tànk yow it biir ajana yow loolu xew ñu bari okashat ibn mihsan yonent bi saa salaam ni am na juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne yadxulul jana bi xëyri xisaab bi xëyri xisaab mooy kenn du xool seen dossier gis ngeen passeport diplomatique nuñ mel ah allahu akbar yii moo ko gën a sophistique nag ndax passeport diplomatique sax mën ngaa mën ngaa am problème benn bis ci bis yi ndax boo amee passeport diplomatique nguur ga nga nekkoon bu jógee bu soobee yàlla nga am problème gis ngeen ñi ko fi amoon ñëpp fi ne ñu ngi gaare mënuñoo dem waaye passeport diplomatique bi mooy àllaaxira da ngay ñëw gàddu say bagage bilaa xisaab kenn du xool say jëf maanaam kenn du ko yulli saako bi nga yore kenn du ko yulli yent bi nee na xeet wi am na juróom-ñaar fukki junniy nit yoo xam ni bu ñuy dugg ajana kenn du vérifier seeni bagage ñoom bu ñu ñëwee rek dañuy ñëw rek dugg ajana bi xëyri xisaab kenn du leen àtte kenn du leen xool allahu akbar benn saxaaba ni bëri muy okaashat ibni mihsan yenteel udu allah an yajalani minhum ha ulaika hum sadiqun mu ne yent bi ñaanal ma yàlla boogale boole ma ca mu ne ko toogal te nga xam ne ca ngay bokk beneen waay jug ni yonent bi teeg ma ca boole waay gis nga bunt boobu ko gis nga yent bi ku mënoon a jàngale gis nga bunt bi su ko tijji woon waaye ku mën a jàngale la xam nga bi ne keneen ki ne boole ma ci bu ne ko woon bokkoo ci musiba day am moo tax gis nga jàngalekat da nga war a xool li ngay wax waxkat sax laay wax bu ne ko woon bokkoo ci xay am de waaye da koo reetaan ni ah sabaqaka biha okaasha yow la doon xoolee sa waa ji jiitu na la kat waay xam nga sa waa ji jiitu na la tekkiwul ni mënoo am lii te boo amul lii mën nga am leneen allahu akbar okaashata ibni mihsan ci gaa yi la bokk thabit ibni qays ibni shammam mu ni man ku yaree di ku laa parce que yaa ayuha alladina am laa tarfaw aswaatakum te dina ñëw mooy saar wi di ñëw ci man la wàcc yonent bi ni gaa yi dem leen ne leen ko innahu min ahli janna moom bu dee ajan la jëm xoolal yi xeeti garanti mbokk yi ñii ak niñ dalee woon xel loolu mooy radiallahu anhum wa radu anhu kon sunu borom mu ni dig naa leen magfiratan jéggal leen seeni bàkkaar wa ajran adiman pay gu yaatoo yaatu gu rëy goo xam ne amuluk yool jannaatu adan ajanay adan joo xam ne waada arrahmanu ibadahu bil xayb yàlla moom leen dig innahu kaana waaduhu matiyan yàlla mu ne li ma wax dina ñëw fële mu ne yurzaquuna fiha bi xayri xisaab dama leen di jox te kenn du calcul maanaam at mi ñu naan budget bu waa ajana nangam la déedéet ajana amul budget bu ñuy wote par an lu ko waral yàlla mu ne bi xayri xisaab amul natt naan xayma nangami milliards la ñuy dundee déedéet bi xayri xisaab mbokk yi loolu war nay tax ñu gën a góorgóorluwaat nu ngi ñaan suñu borom ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi ak yërmandeem ji nga xam ni mu ngi ko jagleel jaamam yi ko gëm te yàlla na suñu borom boole ñu ci gëm noo ngi ñaan yàlla aljanna rawatina aljannatul firdaws comme ni ko yent bi diggee sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen firdaws ndax moo gën a kawe yàlla na borom bi defal la ko nu ngi ñaan suñu borom ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi ci wépp tur woo xam ne tuddee na ko boppam mu xamle ko wala mu denc ko fa moom ah rawatina turam yu sell yi di alxayu alqayuumu alxannaanu almannaanu dul jalaali wal ikram yal na borom bi boole ñu ci ñi nga xam ni seeni mujjantal ci àddina day rafet yal na yàlla def li mujj suñuy kàddu nekk laa ilaha illa allah ngir ñu dajee ko ngërmanil suñu borom yal na yàlla rokkas quran ci suñuy xol ba mu nekk suñu lolli xol yal na yàlla musal nu ci yàqu ak yàqule musiba ak kasara ak lépp luy delloo gannaaw ko gëm yàlla اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين